alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihi alxatimi sayidina muhammadin nasiri alhadi ila siratillahi almustaqim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 del siwaat ci kartanal yàlla sof ak yow rek li ma sosoon ak yow démbu ti juróom-ñeenteeli yaa ayyuhalladina amanu yi ne ci alquran juróom-ñeenteel bi mi ngi ci suratu baqara tolloog aaya deux cent soixante-huit yàlla ne yaa ayyuhalladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ardi wala tayammamu alxabiisa minhu tunfiquuna walastum bi aaxidihi illa an tuxmidu fiihi waclamu anna allaha ganiyun xamid alcheytaanu yacidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxshaai wallaahu yaidukum magfiratan minhu wa fadlan wallaahu waasiun alim suratu baqara aaya deux cent yaxu aaya ji yàlla mu baax mu màgg mu tedd mi mooy hoo ab jaamam bu xeebu ngir bëgg koo jariñ waaye wóowut ko ngir bëgg koo jariñoo yow mi yàlla woon ak bëgg laa jariñ nga war ko wuy si ngir jariñu bañ ñàkk a wuy si su ko defee su booba nga texee di yàqule doo jariñooti ba mukk mu ne yéen ñi ma woo yéen leen njariñ te mooy yéen a ñi gëm dee leen dundale lu teey bu kenn di joxe asaka ci xalal joo xam ne danga koo sàcc walla nga tiriyaa ko walla nga dóor ko marto walla muy xalali nger walla muy xalali xalali way muy xalal joo xam ne xaqi jàmbur yaa ca aju yàlla ne nag ku ca joxe asaka duma ko nangu ndax man dama teey duma nangu lu dul lu teey kon dee leen seet li teey ci li ngeen fàggu ci ngeen saña a joxe asaka ci ngeen sañ joxe tamit sarax ci ngeen sañ a dimit dimbale waaye xalal ju xalaluhut ku ma ko bëgg a féetale ci asaka ma delloo la ko alal ju alaluhut ku ko bëgg a féetale ma ko ci sarax mbaa ci ndimbal ma delloo la ko ndax inna allaha tayibun laa yaqbalu illa tayiban loolu mooy premier maanaam mu njëkk mi ci yaay wala si na amanu anfiqu min tayibaati maa kasabtum fekk li ko taxoon a wàcc ibnu jarir mooy wax ci isnaad boo xam ne ma ko jëlee ci baraaw ibnu azib mu ne aay ji dafa wàcc waa lansaar dañoo baaxoo woon bu ñu xamaan seen tool yi tàndarma yooyu nga xam ne mooy seen koom-koom bi gën a kawe dañuy génnee ay cëgg ci seen tool ya cëgg yoo xam ne sax sonnut a ñor xamut solo mu tàndarma ju gooy ju ñàkk solo ñu jël ci ay cëgg ñëw wékku ko ci ñaari keno yi jàkkaay yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama fuqaraawul muhaajiriina yi nga xam ne dañoo gàddaay si woon tax amuñu doole amuñ njaatige ñi di ca lekk ñi jël nag la gën a baax ca tàndarma gën a sell lekk ko ñoom mbaa ñu jaay ko yàlla ne bu leen ma féetale li gën a bon féetewoo li gën a baax kooku duma ko nangul kenn aaya ja wàcc nag waaye ñoom fu leen a xatte dabee rek ñu doon def lu defuwut keroog lañ koy bàyyi keroog lañ bàyyi jëf jile waaye bu mu ne tayibaat yu teey dugalaale ne lépp loo fàggu ci lu dagan fàggu ko amee ko ci lu lew loola nga sañ a jaamoo yàlla ci asaka moom nga sañ a jaamoo yàlla ci saraxe moom nga sañ a jaamoo yàlla ci ndimbal lu dul loola yàlla xamut ca soxla beneen bi mu ne wa mimma axrajna lakum min ardi dee leen dundale ci lenn ci li nga xam ne maa leen ko génneel ci suuf si Abu Hanifa jël min gi def ko muy minam ya mooy lépp loo génnee ci suuf rekk ak lu mën a doon ak lu somba mën a toll ci masabu Abu Hanifa dañ ca war a génnee asaka moo tax li wax moo gën a arrangé fuqaraawu yay jël asaka ak masaakin ya imaamu Malik jël min gi def ko muy minam tabaid wa mimma axrajna lakum min al ardi ak ci lenn ci li nga xam ne génneel nañ leen ko waaye du lépp Malik jël xeet yañ war a génne asaka lim ko muy ñaar fukk yuy génne ci suuf lu dul ñaar fukk yooya asaka warut ca ñaar fukk yooya yëpp day dellu ci ñaar mooy luñ mën a dundee te man koo denc suñ ko mënee dundee te duñ ko denc asaka waru ca suñ ko tabaarakallaahu manee denc te duñ ko dundee tamit asaka waru ca ñaar yëpp lay rek man koo dundee man koo denc moo tax xeeti fur wi yëpp Malik da koo dégaase duñ ci génnee asaka bu ma ne fur wi nag orange ji ñëw na banaana bi pom bi raisin yi demeet ak yu mel noona yeneen yi nga xam ne ay fur wi la daal moom da ko caa génnee ci li ma bëgg a wax yi nga xam ne nag tabaarakallaahu ay buqool la ñu koy gas ki suuf man koo rëndee waaye mënuñ koo dundee wala buñ koy dundee mënuñ koo denc muy ñaam bi yeeg pataas yeeg ya ci aju yëpp ci masa bu Maalik kenn du ko génnee asaka yi nga xam ne dafa law ami doom nga xam ne rënd la man walla dafay complété sa dund mel ni xaal wala demee ni naaje yomb yi kom kombor yi demeet yooyu yëpp ci masabu Malik kenn du ci génne asaka buy ci masabu Abi Hanifa nag jël min gi def ko muy minam istigraqiya yow may bay jaxatu génneel yow may bay kaani ak xeeti lëjum yooyu yëpp ak lu mu lëjëmu lu rek génneel asaka yow yow mi nga xam ne yaa ngi bay xaal naajeya tabaarakallaahu pomme ya orange ya mandiri ya yooyu yëpp dañ koy génne asaka moom daal lépp luy suuf di saxal rek abu hanifa ñaar la ca setti bu ko mooyee ya ca des yëpp dañ koy génne asaka kon loolu mooy seen gis-gis yàlla nekkoon wa mimmaa axrajnaa lakum min al ardi mu delluwaan nag ca anfiqu min tayyibaati maa kasabtum mu ne wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquuna te walastum bi aaxifiihi bu ngeen dee joxe asaka wala ngeen nee saraxe wala ngeen di dimbale bu leen joxe lu bon li nga xam ne bu ñu leen ko doon jox du ngeen ko nangoo jël loo nanguwut jël bu ko joxe lu dul boo koy nangoo jël illa am tuxmidu fii mooy mu wóor leen ne da ngeen a nama perte jàpp rek ne su ma ko jëlut perte tax ngeen jël ko mu ne loolu bu ngeen di saraxe mbaa ngeen di joxe asaka bu leen ko jox moo tax ñuy bañ ci asaka xar ak bay ya ngay joxe mboccoor ya ak mboto ya waaye benn bu ci nekk luwaa dafa tëral ne bii lañ war a joxe su ko defee nag mu ne yàlla mi leen di laaj ku xoomal la dafa leen di laaj ngir xoomal leen waaye laajut leen ngir xoom leen ndax wax la mu ana laa xaniyun xamid bëri na ku lay laaj fekk dafa lay xoom loo waaye yàlla mii nag moom dafa lay laaj pour xoomalal la mu ne nag li ma leen di laaj seytaane ngi bóof ci seeni xol di leen dëxal ak ñàkk na bu ngeen ko joxee ñàkk da nga leen di digal ak nay man yàlla nag maa ngi leen di dëxal ak jéggal ci li ngeen di joxe di leen di dëxal ak ngëneel ak maanaam fekkil leen ko ya yokkal leen ko kafaara ci seeni i dugal leen ci aljana te man kat yaatu ngëneel laa waaye tamit xamaakoon laa ci lépp ni muy daane laay moo lay daane moo tax foofu as saytaanu yaidukumul faqra saytaane mi ngi leen di dëxal ak ñàkk rek te saytaane nag lu mu lay dëxal rek neen la wa maa yadu wa maa yaidukum seytaan illaa xururan lu la mën a dëxal neen rek la wa yaamurukum bil faxsaayi mi ngi leen di digal ak nay wallahi xam ngeen ne faxsaaw yi ci alquran yëpp ñaareel njaalu lay firi ak lu bon waaye bii rek mu ciy firi nay wa yaamurukum mi ngi leen di digal bil faxsaayi ci nay wallaahu yàlla nag yaidukum mi ngi leen di dëgal maxfiratan ak njéggal min hu bàyyi ko ci moom wa fadlan ak ngëneel bañ na ko ba nakkiiraal ko bu dul jeexati te faqru gi ak farsaaw gi dañ koo maarifaal waaye nag kon nga xam ne xam na fu mu xam bii nag xamul xemukaay wa fadlan wallaahu waasiun alim kon nag nañ wuyu ji yàlla ci dëhalam te ngantu saytaane ci lim ñuy dëhal dafa ñuy wor rek kon yaayu haji li la li joxe leen li ngeen gën a bëgg ndax man yàlla ma defal leen li ngeen gën a bëgg mu dugal lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuuna mu dugal yaa ayyuhan naasu qad jaakum burhaanu min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinan bàyyiwuma dara ci sama téere bi kon nag ñëw leen ngeen xuy si li ma leen xoote bu leen fi nekk di xiirtal ci xalal joo xam ne day jeex bu dee lekk la danga koy lekk mu jeex bu dee yére da ngay sol mu ràpp boo ko saraxee nag dafa fay des nga def ko ci asaka mu fay desati moo tax boo jëlee baata sadaqa lam hëmb rek la hëmb xam na saat saat gi ni ngi jël a saddu dafa lay dëdduloo lépp musiba yi war na dal ci sa kaw daal gi mooy dafa lay tegtal yoon wum lay dugalee nga dem aljana xaaf gi mooy dafa lay notal lépp lu la bëggoon a not ah yaa gi mooy yusru dafa lay gën a xoomalal ngay gën di yokkule ah xaawu saxiira googu muy sadaqa eh, mooy hidaaya la dafa lay gindee ba yóbbu la ci la gën moo tax bu leen fi nekk nag di xëccuwaay xalal rek ci alhaakumu takaasuru di ca nekk di ca nekk xatta surtumul maqaabira ku fa def perte xadis ba dafa wax ne xadisul qudsi ba dafa wax ne yow doomu aadama xalal ji sama xalal la maa la ko dénk maa ngi lay xamal ne loo ca lekk mu jeex loo ca sañ ci ay yére mu ràpp loo ca saraxe nag mu nekk luy des di la jëriñ ëllëg waaye boo ca deful loolu rek perte nga kon nañu bàyyi nay baaxut dafay yàqal nit garab la gu sax ca digg safara ku jàpp-jàpp nga ca bànqaas ya du la baax ba digg safara boo demee abi kabshata di omar ibnu saad al anmaariyu mu ne maa déggee ci yonuntu bi yonuntu bi ne salaasatun ñett a ngi nii yoo xam ne uqsimu alayhinna wa uhaddisukum xadisan faxfasuuhu maa naqasa maalu maalu abdin min sadaqatin wala xulima abdun maxlamatan sabira alayha ila saadahu laa wa izzan wala fataha abdun baaba masalatin illa wa futiha illa wa fataha laahu alayhi baaba faqrin mu ne ñett a ngi man yàlla maay gëñ di leen ci wax loo xam ne maa bëgg ngeen mokkal ko yonentu bay wax mu ne joxe du wàññi xalali saraxe waaye sax safaan bala da koy yokk alquran wax nag ko riba day gotti xalal saraxe mii niru liy wàññi dafa koy yokk ñaar dafa niru yokk ñaar dañoo niroo te fekk lañ niru niruwuñ ko lañ niru doxuñ ko leble dërëm fayee ko fukki dërëm ci riba fa niru lu yokk xalal yàlla na diggante fa koy wàññi yamxaqullahu riba yore woon fukki dërëm jël juróom benn ya saraxe ko fa niru luy wàññi xalal yàlla ne déedéet dafa koy yokk wa yurbi sadaqa kon nag dee leen saraxe di dimbale ma yokkal leen ko mu ne ñu tooñ la nga mën a fayu muñ dangaa foog ne ñàkk fayda lay jural yàlla nee na tedd nga rek ak foor la lay jural xubbi buntab laaj sonal nit ñi rek di leen laaj ak bunti pexe rek nga foone dafa lay hubbil buntab am yàlla ne dafa lay tëjal buntab am hubbil la buntab ñàkk moo tax laajkat foo ko fekk ku ñàkk lay doon jël ay pexe tëral ko rek di dundee nit ñi di leen sonal loo ca xam dafay mel ni safara wu tegu ci ñax wala ñax mu tegu ci safara ñàkk rek su ko defee nag mu ne àdduna ñeenti kuréel la fi ne kuréel bi bu njëkk ba mooy ki yàlla wërsëgal xam-xam wërsëgal ko xalal muy dundale ci xalal ja di gindee nit ñi ci xam-xamam ba yàlla nañ ci yàlla boole kooka dëkk waaye gën a kawe la dëkk ci aljana ku ñaareel ki mooy koo xam ne xam-xam la am waaye xamut xalal waaye am na xéene ju rafet ne su amoon xalal def lii boroom xalal yu baax yi def dana xam ñaari payoor ñetteel ki nag mooy koo xam ne tabaarakallaahu am na xalal waaye amul xam-xam te xalal lam jët tamit defut ca lu baax daf ci xeexi mbokkam di ci liggéey nit ñi di ca soxoree kooka nag moom ala kulli xaal su boobaa safara la jëm tam mooy ki gën a perte nit ñi kon nag yàlla ku tey la ku lu tey mu nangu ko yonentu bi nee na man tasaddaqa bi illi tamratin min kasbi tay min kasbi tayibin min kasbi tayibin wala yaqbalu llahu fa inna laa yaqbaluha bi yaminihi suma yurabbiha li saahibiha kama yurbi ahadukum fuluwahu hatta takuna misla al jabali bukaari yoog muslim muttafaqun alayhi la ñu andi hadis boobu mu ne ku toll ni benn tàndarma da nga jëlee ko ci fàggu gu teey gu lew ndax yàlla du nangu lu dul lu teey yàlla koy nangoo ca ndeyjooram ba mooy ca kartanam ba fulal la ko yaral la ko comme ni kenn ci yéen na mu yaree aw moolam ba mu xëy nekkam ponkal noonu lay yàlla yi fulee sarax ba di ko yokk ba mel ni ab montagne kon nag yàlla ngoog mooy nangu sarax yi alam yaalamu an allaha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi waaye nag wa yaxudu sadaqaati mooy jàpp sarax yi de ba nga ko tegee ca loxob miskin ba rek da tegu ca loxob yàlla ba moo tax miskin ba sax dégg mu ne la waaye eh, eh, yaa rabbi yaa rabbi moom lañ yàq ne laa rabbi laa raan yaa rabbi yaa rabbi rek la woon waaye mu ne tamit ko eh, jaamab yàlla baa ngi laaj de dimbale leen ko ku ko jox rek jox nga yàlla su ko defee nag def ko nag mooy la Ubay ibnu Kaab nettali woon ne yonentoo ma yónni ne naa dem jëli asaka yi ma dem ci benn waay càmbar xalalam ci benn bintu maxaat moo ci war mu ne ma bintu de xamul soow te kenn du ko takk xam naa fi lañ gëléem taxaw ma jox la ko mu ne ko ma koo jël ndax lii la ma yonantu bi santoon na naa ko jël soo bëggee ma jël ko ngay dem ba ci yonantu bu ne waaw ma ne waaw waaje ne ko daal man gëléem gu ponkal gi laay joxe mu ne ko nañ dem ci yonantu bi mu gaaral ko yonantu bi yonantu bi ne ko ah gii de mooy gi war muy bintu maqaad gii ngay xeet waaye nag boo joxee gii ngir ak coobare yàlla fay la ca mu ne ko joxe naa ko ci coobare yonent bi ñaanal ko mu bëri xalal lool moo tax mu ne ko zalika vi alayka fa in tatawata bi xayrin ah ajaraka llahu fiihi bu waati wa wa qabilnaahu minka dañ ko nangu su ko defee nag waa waaje joxe ko kon gis nga ko kooku dugg na ci buntab lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbuna mënu leen a joxe li ngeen mënu leen a am li ngeen bëgg lu dul da ngeen a joxe ci lenn ci li ngeen gën a bëgg waaye waxul ci lépp li ngeen bëgg de lenn ci li ngeen waxun waxun ne li nga bëgg lépp nga joxe ko nga sa kër gi bëgg sa oto bi bëgg sa xaalis bi sàkkal ca xaalis ba nga joxe de oto ba kër nag joxe leen ci lenn ci li ngeen gën a bëgg man tamit ma ma ma jox leen ci li ngeen gën a bëgg moo tax aaya ji bi mu wàccee daal benn saxaabi dëgg dëgg bu baax moo jëfee aay ji pratiqué ko dëgg te mooy abu talxata dafa ñëw ci yonent bi ne ko inna ahaba amwali ilayya bayruhaa u mu ne ko xalal ji gën a sax ci sama xol ma xam ko bëgg ko mooy sama benn tool bu ñuy tuddee bayruhaa u loolu ma la won boo xam ne la fa nekk ci ay teen ak ay tàndarma kenn xamul ni mu toll yonent bi daana fa dem sax di naan ca ndox ma mu xëy rek ne ko aaya ji wàcc rek abu talha ta ñëw ne ko tool baa ngoog yaa ngoog yonent bi jox naa ko ci yoonu yàlla yonent bi ne ko ba xiin ba ba xiin zaaka maalun raabixun loolu de xalal la duy toneku de su ko defee nag yenoon bi ne ko daal li ma gisoon mooy baxi ma ko ma joxe ko say jegeñaale ak a baax wan na ko ne ko mën naa koo jël mbaa ma jox ko samay mbokk waaye dafa ne ko daal baxil ma séddale ko say mbokk yi ndax bénéfice ba gën a bëri ndax sarax boo jox nga jox ko sa mbokk ñaari yool ngay xam yoolab sarax bi ak yoolab jokk mbokk ga boo ko joxee jàmbur nag nga xam benn yool moo yoolab saraxe ba rek mu ne ko kon bahil ma joxal la ko say mbokk naka noonu te bi laay di wàccee lantanaa loolu birra benn saxaabi yi bu ñu tuddee Zayd ibnu Haarisata nit ku ñuul la suñ mbokkam nit ku ñuul la moom rekk la alquran tudd turam ci téere bi fa lama qada saydun minha wataran zawajnaakaha xamoon na wenn fas moom la xommat ñëw jox ko yonantu bi ne ko fas wii mooy lu moom laa gën a bëgg ci sama fas yi comme yàlla nee na mënuñoo am liñ bëgg lu dul dañoo joxe ci liñ bëgg fas waa ngoog joxe naa ko ci yoonu yàlla xoolal ma yonantu beeg mbaax gi mu jël fas wa jox ko doomam usaamatu moom Seydou doomam di usaama nit ku ñuul la mu joxal ko ko ko mu mel ni daal am na lu mu yëg ci bakkanam ne daal buñ ko joxoon jàmbur mu may gënal yonantu bi ne ko déedéet inna allaha qad qabalaha minka yàlla nangu na ko ci yow da ngaa joxe woon ngir yàlla jox naa ko yàlla nangu na ko jeex na kon saxaaba yi bu aaya wàccoon dañ daan kursu ñu ne maa ko dàq jëfee looloo dal tabaarakallaahu ku ñuy tuddee maanaam euh, benn saxaabi yu sawru moo koy nettali suuri yu sawri yu mu ne balaqahu anna umma wala di rabia ummu walat boo xam ne rabia ko moomoon benn laajkat dafa ñëw taxaw laaj ne ko jox ma aa mu ne qaalat kaana ida jaahu saailu yaqulu lii yaa fulanatu aatini yaa fulanatu aati saaila sukran fa inna rabia yuxibu sukra mu ne imaamu sawri yu ma nettali ne benn umu walat boo xam ne rabiixa ko moomoon rabiix dee ba ko fi bu ab laaj kan mosaan na ñëw di laaj dafa koy wax ne ko rabiix da koy wax ne ko jox ko suukar man yàlla moo ma nattu suukar laa gën a bëgg rabiix dee mu continuer di ko saraxel suukar wadrab ya dafa bëggoon suukar ba kuy saraxu mu sarax ko suukar ndax yàllaa ne mënu leen a xam li ngeen bëgg lu dul da a joxe ci lenn ci li ngeen gën a bëgg moo tax bu yalwaankat bi ñëwaat rek mu wax umma wala ba nekk ne ko saraxeel ma ko suukar mu dem ba dee mu continuer di ko saraxeel loola naka noonu Omar ibnu Abdul Aziz dafa jëndoon ay gorosi suukar yu bari di ko saraxe ñu ne ko lu tax ngay saraxe suukar te saraxe xayma ja mu ne suukar laa gën a bëgg li anna sukara ahabu ilayya fa aradtu an unfiqa mimma uhibbu su ko defee nag moo tax ma koy saraxe ngir dëggal yàlla ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna xasan tamit nit la woon koo xam ne bi laay ja wàccee dafa daan wax ne innakum lan tanaalu ma tuhibbuuna illa bi tarki ma tashtahuuna ah bu ko defee walla wala tudriku ma taamaluuna illa bi sabri ah, ah, illa bi sabri ala ma takrahuna xasan nee na mënu leen a xam li ngeen bëgg lu dul da ngeen a joxe li ngeen sopp du ngeen jot li ngeen mbébét lu dul da ngeen a muñ li ngeen sib moom noonu la ko daan firee amoon na saxaabi bi boo xam ne ganaar la bëggoon yàpp rek ba aaya ja wàccee moom dafa dem saraxe ji ganaar ne lii laa gën a bëgg booy joxe tamit joxe lu teey waaye boo demee imaamu Qaradaawi dafa wax ne ci benn benn benn leetar benn kii bu mu bind unwaan ba mooy azzakaatu laa tutahirul maal al xaraam loolu mooy unwaan ba dafa wax ne asaka mënta laabal xal la ju xaraam Qaradaawi wax ne soo bëggee asaka ji laabal sa xalal ji dolli ko sakkanal ko na fekk nga fàggoo woon alal gi ci lu dagan waaye boo fàggoo alal ci lu xaraam dem joxe ci asaka yàlla du ko nangu alal joo xam ne yaa ngi ko jëlee ci daan nit ñi fëkk doole jël lii danga koo jëlee ci njar lii da koo jëlee ci riba lii danga koo jëlee ci karta lii da koo jëlee ci sàcc yooya alal lu mu bëri bëri bëri boo ca bëggee joxe asaka tamit dafa mel ni ku jël yére di ko fóotee am saw xam nga dafay gën a tilim rek waaye du dem fenn naka noonu xaradaaw yi mën a jooju xalal boo déggee moo tax xaradaaw yi dafa wax ne inna zakata mutahiratun lil maali wa sababun li namaihi wa li bari wa li barakatihi fa innama naani bi dalika almaal alxalaal alladi wasala ila yadi xaisihi min tariqin masruin amma almaalu alxabiis alladi jaa an tariqi nahbi aw al ixtilaafi aw al riswa aw al istiqlaali nuquud aw al istiqlaali nufuud aw al riba aw al qimaar aw ay nawcin min anwaaci akli amwaali annaas bilbaatil fa inna sakaata laa tuassiru fiihi wala tutahhiruhu wala tubaarikuhu maa ablaga loolu la wax de wa maa ablaga maa qaalahu baadu alxukamaa ah masalu alladi yutahiru almaal alxaraam bisadaqati ka masali alladi yuxassilu alqaasuraati bilbawli kon nag xara daawi loolu la wax waaja yokkal ko ca wax ja gën a fasaane ko kii jël xalal ju xaraam di ko saraxe mbaa mu cay joxe asaka mi ngi mel ni ko amee yére di ko fóotee sobe gën a tilim rek kon triankat yi bàyyi leen sàcc xalali jàmbur yi bàyyi leen nax xalali nit ñi ba leen nger ba pare bëgg caa naxee yàlla ne dama cay saraxe dama cay asaka su ma joxe un pour cent bi dana laab waxi caaxaan rek la ku ko def yàlla duma la xëlëb inna la tayibun laa yaqbalu illa tayiban yonentu bi ne man jamaa maalan min xaramin summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kaana isruhu alayhi hadis la bopp ibnu xusaymata ibnu xibaan ñoo ko indi ak xaakim soo demee ci seen téere seen saxi ba da nga ko ca fekk yonent bi ne ku dajale xalal ju xaraam saraxe ko doo ki jëlee genn payoor waaye safaan ba nga ci jëlee dumaay yàlla muy bakkaar beneen xadis ba ne laa yaqbalu llaahu sadaqatan min xaluulin wala salaatin bi xayri tahóorin naka nga xamee ne boo jullee te laaboo sa julli ga yàlla du ko nangu jàppoo mu ne xalal joo xam ne da nga ko jëlee ci sàcc tamit ala kulli xaal loo ko mën a def tabax ca jàkka ah tabax ca jumaa ah saraxe ca dimbale ca néew ju doole ya tuus ay duma rek moo lay xaar ëllëg yonentu waxaat na ci beneen hadis walladi nafsi bi yadihi laa yaksibu abdun maalan xaraaman fa yatasaddaqu bi kenn du fàggu xalal ju xaraam di ko saraxe yàlla di ko nangu wala mu koy dundale yàlla di ko ko barkeelal su ko baxee gannaaw tamit saraxe xut ko da koy dolli mbugal ci biir safara ndax da koo baxee ay doomam ñi cay moy yàlla bu ëllëgee tamit ñu ko cay mbugal ak lu ca doom yi mën a def sax ndax laa yamxu sayyi'u bi sayyi'i walakin yamxu sayyi'u maanaam bil xasani inal xabiisa laa yamxul xabiisa kon loolu jar ba jar na baxi xel imaamu qurtubi wax na ko la innama laa yuqabalu laahu asadaqata bi haram lu tax ñu ne ko mu ne li annahu xayru mamluk lil mutasaddiqi li nga saraxe moomoo ko di xalal kay balaa yàlla nangu sarax ga day fekk nga moom ko waaye xalal joo tériant ci nit kay la wax mooy delloo ko ko moom ba pare te jéggalu ko waaye jël xalali jàmbur joo tériant di ko saraxe fu muy fu ko yàllay nango ma Qurtubi wax na ca wax ju sew nee na li saraxe nga moomut li ngay joxe asaka nga moomut loo moomut noo cee mën a jaamoo yàlla kon demal nga xewee kokk ko moom ba pare door koo jéggalu abu hanifa boroom xam-xam yi nekk ci ngiram mi dañuy wax ne law dafaa rajulun ila faqirin shay'an min almaali alxaraami yarju bihi sawaaba mu ne yukaffiru bi zalika law alima bi zalika alfaqir fa daa lahu yukaffiru aydan moom nag boroom xam-xam yi nekk ci mazhabu Abu Hanifa ñooy wax loolu waaye loolu amul sukkandiku waay ne su fekkoon ne benn waay dafa jañ xalal ci ab faqiir muy xalal ju xaraam yaakaar ca ak payoor su ko defee dana ko kafaaral bàkkaaram yaag yooya déeréet loolu amul benn sëslaay ci sharia kon nag asakaay alal ju teeyangoog yaa wala sam anfiqu min tayyibaati ma kasabtum wa mimmaa axrajnaa lakum minal ardi nag lu yaatu la lépp luñ leen génneel ci suuf si ci mbell yi ngeen génnee ko ci mbell yi joxe leen asaka ja buy ci masa bu Malik na fekk muy wurus ak xaalis buy ci Abu Hanifa weñ gu ñuul ak përëm ak mbell lépp loo ca mën a génnee da nga ca génnee asaka moom loolu la gëm lépp loo xam ne suufa ko saxal dañ cay génnee asaka waxoon naa la ko buy maalik nag luñ mën a dundee te mañ koo denc te sarta ba na mat juróomi dabi wusux wusux bu nekk mooy tolloog juróom benn fukki saa saa bu nekk mooy tolloog ñaari junne ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci garaam kon loolu gramme bi nag boo ko jëlee nga calculer ko ci ay gramme ci ay kilo mooy tolloog juróom benni bërigo ak juróom fukki kilo ak ñett képp ko am lu toll noona war nga ci génne asaka juróom benn bërigooy mboq ak juróom fukki kilo ak ñett ci mboq ci ceeb ci dugub ci suno bi ci saaño bi aa loola lépp bu ko matee daal génne ci asaka pot booy nattee yaa xam jëlal juróom ñeent ya ndeem yàlla taw ta nga joxe fukkeel ba bu fekkee yaa ko arrosé sonn ca joxeel juróom juróom-ñeenteel ba ak genn wàll yaa moom genn wàll pot ba rek ngay joxe yàlla ku maandu la ku bëri yërmandi la su fekkee ne nag la li nga arrosé li nga tawaxeem Abu Hanifa mu ne ñu xaaj ko ci digg bi rek lii asakaay fukkeeli pot lii asakaay genn wàll fukkeel ba kon nag asaka yaa ngóog ak li ci aju su ko defee nag kon loolu la Abu Hanifa gëm aaya jàngoo kon loolu lay jàngale yaa ayyuhal lazina aamanu anfiqu min tayyibaati maa kasabtum wa mimma axrajnaa lakum min al ardi wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquuna wa lastum bi aaxiziihi illaa an tuxmidu fiihi waalamu anna allaha ganiyun xamiid anna allaha ganiyun xamiid suratu baqara aaya jàngoog wax naa la ko kon nañ ci taxaw ci asaka yi nañ ci taxaw li asaka warut wala mu war boo ko génnee ba pare nga sàkk ay ndimbal dimbale ca néew ju doole ya benn dërëm boo ko joxe yàlla fulal la ko juróom-ñaari téeméer moo gën a tuuti la gën a bari nag yàlla xam la ko soob ndax moo ne man yàlla maay fulal maay ful li ma soob di ko fulal ki ma soob su boobaa kon nag juróom-ñeenteelu yaa ayyuha jàngoog ci suratu baqara boo ma toppee suba ci waxtu wi ma dugg ak yow ci fukkeelu yaa ayyuha ji riba lay jàngale yéen lekkatu riba yi déglu leen ma suba waaye yéen ñu ko du lekk sax déglu leen ma ndax ngeen bàyyi ci xel xam ne riba foo ko teg ci bàkkaar ak ci mbon rek passé na ko kooku mooy fukkeelu yaa ayyuha ji ci suratu baqara tolloog aaya deux cent quatre waaye suba ci waxtu wi lay doon insha allahu wa axiru an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kar